ndax man bu ma tëddee damay nelaw ma yàndoor jàllo lu rek laa koy waxee ndax yéen laa yërëm ci yéen la méttee hmm. yéen a jaaxal kon nag dalal leen seen xel bi ñu waree communiquer hmm. communiquer nañu wallaay ñi war a wax. wax nañu. wax nañu. billaahi. ñi mën a ràññee. ràññee nañu. léegi nag wax dafa jeex. li des. mooy fa mbaxane doone benn. foofu nag man duma ca wax ndax ma tëddee ngelaw. est-ce que leer na. ñii ratatati nag yor seen làmmiñ di ratatati guddeeg bëccëg ñoo xam li ñuy ratatati ñoo xam li ñuy tiit ñoo xam li leen jaaxal lu mu doon bu leen neexee sax ñu wuti wàllu Chine wala ñu wooy waa Pakistan waaye li leer ba leer li leer ba leer. mooy dëgg rek mooy mujj. dama ci sori nag foofu la